ñi ànd ak Sadio Mané tamit kenn demul ñu des ñoom it entraîné nañ euh, tey ci suba nga xam ne ñoom it def nañ entraînement boo xam ne bu am solo lay doon euh, avant nga xam ne euh, moom la ñuy football final ba ginnaaw ba nga xamee ni wan nañ leen entraînement bu gone Real Madrid tey jii wala boog dañ leen di wan entraînement bi nga xam ne mooy entraînement gone Liverpool yi nga xam ne Sadio Mané tey jii moom fesoon na ko lool lool fu ne ah, ma nga fa doon dox di fa jàmba jonge di waaj match ba nga xam ne moom la ñuy football le 28 mai. ca stade de France comme ni ko goney Real Madrid di defee entraînement bu saf lan dóor mais ñii tamit feelu nañ leen ci entraînement boo xam daanaka sutura la doonoon ndax photo ya nga xam ne moom lañ fa jël bariwul noonu euh, nekkul leen fa daan jël ndax am na lu ñu nëbb ci classement bi nga xam ni moom lañ bëgg a yëkki donte xam nañ ni Mouhamadou Salah ak nga xam ne mooy Sadio Mané dinañ départ waaye TikTok de jeu ba nga xam ni club war na ko indi loole danaka da koo bëgg a nëbbu gone yi nga xam ñooy gone yi Madrid yi nga xam ne vingt 28 mai ci stade de France ñoo war a jàkkaarloo.